barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. samay mbokki ci turi mbooleem suñuy mbokki taalibe mbokki taalibe yi nag ne mu ngi ciy jiital mbokki taalibe yi dëkkee fii ci Medina Baye mbokki taalibe yi dëkkee fii ci Medina Baye gii dëkk ci pey bi dëkk ci pey bi di dund ci pey bi di dund xam xaqi pey bi di wëttaleku. lépp lu yàq pays. lépp lu yàq pays. ñun ñi ñëw. ñun ñi ñëw. dañ nekk suñuy njaatige. dañ nekk suñuy njaatige. maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. ne mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ku ci nekk ci daraja bi ko yàlla sédd. ku ci nekk ci daraja bi ko yàlla sédd. mu ngi koy nuyu. boo gisee ma njëkkee. ne boo gisee mu njëkkee. mbokki taalib ci mbokku taalibe yi julli mi ngi commencé ci liqaam julli mu ngi commencé ci liqaam bu imaam jiitee bu sël julli nga ci sëlmal bu imaam jiitee julli gi hem ci sëlmal kon nag bon nag ñu njëkkee liqaam ñu njëkkee liqaam mooy nuyu suñ mbokki mboolem suñ mbokki taalibe na mu ngi nuyu suñ mboolem mbokki taalibe yi di ñaan nag di ñaan nag kenn ku ne ci ñoom kenn ku nekk ci ñun. suñ mbokk. suñ mbokk. suñuy jarbaat. suñuy jarbaat. suñuy liggéeykat. suñuy liggéeykat. suñuy mbokkum liggéeykat. suñuy mbokkum liggéeykat. muy imaam Cheikh Tidiane Cissé. muy imaam Cheikh Tidiane Cissé. te liggéey na biig. te liggéey na tey ñu huutu ko ci jotaay bi. tey ñu huutu ko ci jotaay bii ñu daje tey. ma bëgg ñun ñëpp. ma bëgg ñun ñëpp. mu bëgg ñun ñëpp. ku nekk jàng ku nekk jàng faatiha benn yoon. ñaanal ko yàlla. ñu ñaanal ko yàlla. gàllankoor bi ko téye. gàllankoor bi ko téye. yàlla teggi ko. yàlla teggi ko. ba su déwénee. ba su déwénee. ñun ñëpp ñu bokk toog. ñun ñëpp ñu bokk toog. mu toog ak ñun. mu toog ak ñun. yàlla yàlla def loolu. yal na yàlla def loolu yaara bi. ci barke Maulana Cheikh Ibrahim. ci barke Maulana Cheikh Ibrahim amin yaa rabbi yal na yàlla def loolu mbokk yi mbokk yi ndege ni si daaw lañ fi teewoon ndege ni si daaw lañ fi teewoon ci waxtu wii yàlla dimbale nañu teewaat fi yàlla dimbale ñu dimbale nañu ren ñu teewaat fi buñ fi teewee moom la neex buñ fi teewee moom yàlla la neex teew nañ fi te ànd ak sago teew nañ fi te ànd ak sago waaye lépp ci suñu barkeb sëriñ waaye lépp nag ci suñu barkeb sëriñ la kon kon yéen suñuy mbokki taalibe yéen suñuy mbokki taalibe ne mu ngi ñuy nuyu bu baax a baax a baax soog a nuyu sëriñ bi nag di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi yàlla yàggal ko fi ndax mooy suñu tiitar ndax mooy suñu tiitar mooy suñu sakk mooy suñu sakk mooy suñu kaaraanga mooy suñu kaaraanga suñu bàyyi ñes mooy suñu bàyyi ñes suñu te Baye Niass mooy lépp. lépp xam ngeen. te te. lii ma bëgg a wax. lii mu bëgg a wax. moom daf koo fekkee. fii. fii ci barab bii. ci mbaar mii. ci mbaar mii. di waxtu gàmmu. nawet. ndox mi def ko mu mel ni mbaq. ñu bënn ko. ñu ko. taxut taxut baay jóg. ndox mi sotteeku ci kaalaam gi. ndox mi sotteeku ci kaalaam gi. boo xoolee faasam yi. boo xoolee faasam yi. mel ni da ngaa dëbb seetu tey ko taf ko ci faas dafa mel ni da ngaa seetu taf ko ci faasam yi. muy melax. muy melax. gàmm googu. gàmm googu. bi bët setee. bi bët setee. bàyyi mu ne. bàyyi mu ne. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ne fanaan ci gàmmu gi moom ñu ne fanaan ci gàmmu gi ku gis gis na ku ko gis. gis na la ku ko gisul gis na la ku gisut gis na la mu ne mu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bunta bi yàlla ci kaw suuf mooy bunta bi yàlla ci kaw suuf kenn du egg ci yàlla kenn du àgg ci yàlla te jaaroo ci buntab sayyidina sallallahu alayhi wa sallam te jaaroo ci buntab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu teg ca mu teg ca ne jaam bu xeebu bii jaam bu xeebu bii mooy buntab yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy buntab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man fekkee naa moom mii nee na fekkee na jotaay boobu. kon nag kon nag. ku siyaare si. ku ko siyaare si. yonent nga siyaare. yonent nga siyaare. ku siyaare siyaare xalifaam. baay nga siyaare. baay nga siyaare. ku siyaare baay. ku siyaare baay. yonent nga siyaare. nag. kon nag. ñun taalibe yi. ñun nañ leen takkuwaat. te góorgóorlu xaat. te ngi ñaan. ne mu ngi ñaan. fii. fii. na daraja ji benn. na daraja ji. nekk di benn. ñun ñëpp. ñun ñépp ku ci ne. ku ci ne. fa nga nekk. fa nga nekk. yaa ngi fay am teraanga. te wóor na la ne. te wóor na la ne. jëlewoo ko ci sa ndey. jëlewoo ko ci sa ndey. du baay. jëlewoo ko ci sa baay. du ko ci sa famille. ci nangul baay topp baay. ci nangul baay. topp baay ci nga ko xamee boo xamee boo xamee wax xam-xam ba leer wax xam-xam ba leer mbootam bàyyi ca dugg nit ña déglu la mbootam bàyyi ca dugg boo ñaanee mu nangu boo ñaanee mu nangu mbootam bàyyi ca dugg mbootam bàyyi ca dugg boo waxee mu neex boo nga topp futteeku nga dox ak tànk ba egsi nga dox ak tànk ba agsi wan leen na lu ma xam fii laa ko jëlee xam fii laa ko jëlee loolu mooy ngor. loolu mooy ngor. loolu mooy ngor. waaye. waaye. dund ci baay. dund ci baay. tedd ci baay. tedd ci baay. lépp nga xam ko ci baay. lépp nga xam ko ci baay. soo xamee xew. soo xamee xew. bu ci bu ci doomu baay ñëwut. bu ci doomi baay ñëwut. sa xew li soof. sa xew li soof. fokk nga fexe ku ñëw. fokk nga fexe ku ñëw. booy ngénte doo ci xoolu sa bopp. booy doo ci xoolu sa bopp. boo xamee xew doo ci xoolu sa bopp. boo xamee xew doo ci xoolu sa bopp. lu mu mën a doon doo ci xoolu sa bopp. lu mu mën a doon doo ci xoolu sa bopp. ka lay taaral jox la daraja. ka taaral si jox la daraja. nga bëgg àddina be. nga bëgg na be boo ko xooyee ba mu ñëw boo ko xooyee ba mu ñëw nga liggéey ponkala piliyaan nga liggéey ponkala piliyaan diggante fi ngay toog ak suuf daanaka mën na meetar diggante fi ngay toog ak suuf daanaka mot na meetar ci kawewaay jël doomi bàyyi teg ko ci suuf jël doomi baay teg ko ci suuf toog ci kaw ñëpp di la seen toog ci kaw yow ñëpp di la seen caméra yëpp di la jam caméra yëpp di la jam nga foog ne loolu dana wéy nga foog ne loolu dana wéy billaahi du wéy billaahi du wéy da ngay nax sa bopp du wéy tey. du wéy tey. du wéy ëllëg. du wéy ëllëg. damaa placé nag pour wax ko. dafa placé nag pour wax ko. su ma doon sëriñ. su doon sëriñ. ni xalifa bi. ni xalifa bi. amul droit wax ko. amul droit wax ko. parce sama bopp ne. ndax ci boppam la nekk. waaye. waaye. Cheikh Serigne Mbaye. Cheikh Serigne Mbaye. taalibe Baay Ñas la. taalibe Baay Ñas la. Lolo mooy tiitaram. loola mooy tiitaram. rakki Baay du tiitaram. rakki Baay du tiitaram. taalibe Baay laa mooy tiitaram. taalibe Baay laa mooy tiitaram. wax ko ci kanam Baay. wax ko ci kanami Baay. ñaan loo mbokk taalibe yi. ñaan loo mbokk talibé yi. nañ ko ñaanal mu doxab taalibe. nañ ko ñaanal mu doxab taalibe. Serigne Mbaye taalibe la. Serigne Mbaye taalibe la. Baay moo ne ko. Baay moo ne ko. yaay magam taalibe yaay magam taalibe man mi wax. man miy wax. doomi magam taalibe laa. doomi magam taalibe laa. taalibe laay waxal nag. taalibe laay waxal nag. waxut ak sëriñ si de. taalibe yi lay waxal ne na. ndax. ndax. lépp lu ñuy yàqal ñu ba lépp lu ñuy yàqal ñu ba ko. lépp ñuy njëriñ ñu tegu ci yoon. ñuy njëriñ ñu tegu ci yoon wa. baay mii. baay mii. kenn mënut cee jëriñu lu ma ci xanam ak taalibe. kenn mënut cee jëriñu lu ma ci xanam ak yàlla bu ñu rëcc. yàlla ñu rëcc yaara bi. rëkki. yàlla bu mu ñu rekki rekki la ñu bëri xamuñu ko. rekki la ñu bëri te xamuñu ko. jëndal carte orange. jëndal carte orange. wala tigo wala tigo. carte la de. carte la de. te bind na ci mbind mi. te bind na ci mbind mi. nga xoos ko. nga ko. jël secret bi. jël secret bi. def ko ci biir portable bi. def ko ci biir portable bi. këyit waa ngi fi. këyit waa ngi fi. mbind maa ngi fi. waaye jéem koo jël yow. waaye jéem koo jël yow. bëgg koo def ci beneen portable. mën na cee boole ko sa portable de. mën na cee boole ko sa portable de. kon kon. secret ba jeex na. secret ba jeex na. waaye këyit baa ngi fi. waaye këyit baa ngi fi. mbind maa ngi fi. mbind maa ngi fi. lépp a ngi fi. lépp a ngi fi. ku ñu rekki. ku ñu rekki. lépp noonu lay mel. léppam noonu lay mel. dana lekk da nga naan da nga xam jabar. waaye doxoo dara. yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal. mu bëgg. mu bëgg. pay baay bii. pay baay bii. nañ préparé haat tuub te dellu ci yàlla te jéggalu Mawlaana Cheikh Ibrahim te jéggalu Mawlaana Cheikh Ibrahim lépp defal nañu ko lépp defal nañu ko defaluñ ko dara ndax di ko dundee kon nag kon nag nañ fonk pays bile nañ fonk pays bile nañ ko xormaal nañ xormaal pays bile ki ko fi wutu bàyyi fii ku fi xutu baay. mat na baay. mat na baay sëq. mat na baay. mat na baay. daaw fii. daaw fii. ak ren. ak ren. ndam li ko yàlla jox. ndam li ko yàlla jox. ñëpp àdduna bi yëpp ñu ngi koy sagoo. àdduna bi yëpp ñu ngi koy sagoo. buñ sañoon a fecc danañ fecc ñun. buñ sañoon. buñ sañoon a fecc. buñ sañoon a fecc ñun dañuy fecc buñ sañoon a woy buñ sañoon a woy danañ ko woyal buñ sañoon a sor xolle buñ sañoon a sor xolle danañ ko ko defal ndax ndax ba ko yàlla dimbalee ba ko yàlla dimbalee waa Soudan yaakaar waa Soudan yaakaar kii di xalifa dafa fekk dafa fekk Nations Unies bi ñu wax ci làmmiñ bi ñuy wax ci làmmiñ te bàyyi xam ko moom te bàyyi xam ko moom ña nekk Soudan ña nekk Soudan la ca ëpp seen doom yaa ngi fii di jàng la ca ëpp seen doom yaa Medina yar leen bàyyi yar leen loolu moo tax mu yokk ca moom loolu moo tax mu yokk ca moom moom moo leen moom moo leen moom lu ñu am ci barke baayam lañ ko amee moo tax mu yomb ci moom feneen nit bu fa demoon noonu lay yombee ci moom kon dañ ko war a sante yàlla alhamdulilah ci suba day am na ñu ma seet ne ci suba day am na ñu ko seet si mu ne leen mu ne leen baleen ñëw julli jumaa ñibbi baleen ñëw julli jumaa ñibbi ku ci julli jumaa ñibbi. ku ci julli jumaa boo demee looy joxe sëriñ boo demee loo joxe sëriñ ca. joxe sëriñ boo demee loo joxe sëriñ joxe naa sama hadiya. joxe naa sama hadiya. gisoo sëriñ bi. gisoo sëriñ bi. dégluwoo waxam. dégluwoo waxam. te ne mooy sa sëriñ. te ne mooy ñëw rek. lu ñëw rek. joxe joxe. dellu dellu. boo ne bëgg nga day. boo ne bëgg nga day. man de moom day gëmu ko. ñi bëgg dañu ngi toog. ñi bëgg daal ñu ngi toog. kon nag yéen ñi bëgg. kon yéen ñi bëgg. ma ànd ak yéen ci bëgg gi. mu ànd ak yéen ci bëgg gi. maa ngi leen di ndokkeel. mu ngi leen di ndokkeel. ku ci ne mbëggee la la indi. ku ci nekk mbëggeel la la indi. gu mat sëkk. gu mat sëkk. nga jël la nga am. nga jël la nga am. joxe ko te xeeb ko. joxe ko te xeeb ko. ngir mbëggeel gu mat sëkk. ngir mbëggeel gu mat sëkk. nuyoo. nuyoo. toog ci suuf. toog ci suuf ngir mbëggeel gu ma sëkk ngir mbëggeel gu ma sëkk gis nga coow li li muy bëri bëri gis nga coow li li muy bëri bëri sama wax sa waxi keneen sama wax ak waxi keneen waxam rek la ñuy déglu waxam rek la ñuy déglu fekk waxut rek wax ji jeexagut fekk waxut rek wax ji jeexagut kon nag kon nag ku fexe ba tardé wax jooju ku fexe ba tardé wax jooju ah man la gisuma la mbaaw moom day gisut la mbaaw kon nag taalibe nañ xam loolu bu baax a baax kon nag taalibe yi nañ xam loolu bu baax a baax bu ñu xoowatee sëriñ bi bu ñu hooyatee sëriñ bi. chaise bi nga xam ne ca la war a toog. chaise bi nga xam ne ca war a toog. bu ci kenn toog. bu ci kenn toog. boo ca toogee. boo ca toogee. image bi jël ko. image bi jël ko. sëriñ bi ñëw. sëriñ bi ñëw. nga jóg nga jóg. dafa mel ni sa place nga ko xabal. dafa mel ni sa place nga ko xabal. te xable la kat. te xable la kat. seesam bi. seesam bi. kenn waru ca toog. kenn waru cee toog. bu toogee ba jóg. bu toogee ba jóg. dem na. dem na. boo ca toogaatee. boo ca toogaatee. da ngaa barke. da ngaa barke. loolu mooy teggin. loolu mooy teggin. ba ca topp. ba ca topp. yéen samay mbokki taalibe. yéen samay mbokki taalibe. maa ngi ñaan. ne mu ngi ñaan. nañ bàyyi ci gàmmu yi. nañu bàyyi ci gàmmu yi. ak lu xew. ak lu xew. am ko yëkkati micro. am ku yëkkati micro. naan haddi yaay baay. naan haddi yaay baay. haddi yaay baay. haddi yaay baay. haddi yaay baay. haddi baay. tegtalul dara lu may bañ a joxe addiya. tegtalul dara lu may bañ a joxe addiya. loolu dong la. loolu dong la. hadiya ku ko bëgg a joxe. hadiya ku ko bëgg a joxe. te bëgg a xormaal kan koy jox. te bëgg a xormaal kan koy jox. da koy dajale balaa ñëw. da koy dajale ba. bu ñëwee. ñaanal leen. ñaanal leen wax la mu war a wax. wax la mu war a wax. nga jox ko ci sutura. nga jox ko ko ci sutura. waaye seet leen rek. waaye seet leen rek. fu ñu déglu mos a waxee hadiyaay baay. fu ñu mos a waxee hadiyaay baay. ñu dajale ko. ñu dajale ko. sëriñ boo ko jox. sëriñ boo ko jox. dala ko rus a dugal ci poosam bi. dala ko rus a dugal ci poosam bi. da koy téye rek. da koy téye rek. wala moo xam ku mu jox mu téye ko. wala moo xam ku mu ko jox mu téye ko. jagut jagut. nañ ko ba. nañ ko ba. loolu mooy mbir mi. loolu mooy mbir mi. nit dana yàqu te du ko yëg. nit dana yàqu te du ko yëg. ah nañ def ndànk de. nañ leen def ndànk de. nañ def ndànk de. nañ leen def ndànk de. nañu wóor ne. nañu wóor man mu ngi janoog ñun Cheikh Serigne Mbaye day Cheikh Serigne Mbaye day am na amoon na dëkkandoor ci kër Madiabel amoon na dëkkandoor ci kër Madiabel te dëkkandoor ba man moo ma ko wax te dëkkandoor ba moom moo ko ko wax dañoo julli gee ba pare dañoo julli gee ba pare mu lëng ko ñu dem ba fële mu lëng ko ñu dem ba fële mu ne ko diw mu ne ko diw maa ngi lay moytandikuloo maa ngi lay moytandikuloo nga dëkk ak nit nga dëkk ak nit. mu dëddu la dem àllaaxira. mu dëddu la dem àllaaxira. ngay soppandiku ci njabootam. ngay soppandiku ci njabootam. loo xam ne du noonu. loo xam ne du noonu. te mu ngi janoog yow. te mu ngi janoog yow. mu ne ko abaay. Ah, mu ne ko abaay. Ah, ñu nekk àllaaxira ñu ngi janoog ñun. ñu nekk àllaaxira ñu ngi janoog ñun. mu ne leen mu ne dara humpu leen ci ñun. mu ne ko dara humpu leen ci ñun. ñun kay ñoo leen gisut. ñun kay ñoo leen gisut. te loolu. te loolu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko. xare Badar. xare badar bañ reyee sangi màkka yi bañ reyee sangi màkka yi ñëpp ne ci kamb ñëpp nepp nekk ci kamb medd nëpp medd nëpp muy wax ak ñoom muy wax ak ñoom luy seen mbir tey luy seen mbir tey Seydina Omar laaj ko Seydina Omar laaj ko lu mu ko wax lu mu ko wax mu ne ko yéen a xamul waaye waaye dégg nañ li may wax mu ne ko yéen a xamut waaye ñii dégg nañ li may wax kon nag kon nag foofu lañ sukkandiku foofa lañ sukkandiku waaye li ma bëgg a wax daal waaye li mu bëgg a wax daal nañ xeesal suñu taalibe nañ leen xeesal suñu taalibe. nañ leen xeesal suñu taalibe. nañ leen xeesal suñu taalibe. waa kër sëñ Baye Serigne Aliou Cissé. waa kër sëñ Baye Serigne Aliou Cissé. ñëw leen. ñëw leen. wuy si Baye. wuy si Baye. yéen a ngi ci bunta Baye. yéen a ngi ci bunta Baye. waa liggéeyal ngeen liggéeyal ngeen Baye bay bëgg a dee. liggéeyal ngeen Baye bay bëgg waaye ñëw leen rek. waaye ñëw leen rek. kër Serigne Ousmane Ndiaye. kër Serigne Ousmane Ndiaye. takkaayu leen ñëwaat. takkaayu leen ñëwaat. Baye Cheikh Omar Touré. Baye Cheikh Omar Touré. takkaayu leen ñëw. takkaayu leen ñëw. Baye Ibra Fall. Baye Ibra Fall. ñëw leen. ñëw leen. waa kër Misiri. waa kër Misiri. ñëw leen. ñëw leen. waa kër Wulu Ndax wi. waa kër Wulu Ndax wi. ñëw leen. ñëw leen. waa Caat. waa Tchad ñëw leen ñëw leen waa Nigeria waa Nigeria ñëw leen ñëw leen waa Soudan waa Soudan ñëw leen ñëw leen waa Afrique waa Afrique ñëw leen ñëw leen waa Asie waa Asie ñëw leen ñëw leen bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo sërëf yëpp yëpp nga daw ñëw ñëw Medina fi mu ne. sërëf yëpp ngi daw ñëw ñëw Medina fi mu ne. parce que mooy làqukaay bi. ndax fii mooy làqukaay bi. ku fi dugg mucc ku fi dugg mucc. ku fi dugg mucc. ku fi dugg mucc. yéen ñëpp fekkee ngeen Sénégal. yéen ñëpp fekkee ngeen Sénégal. suñ diggante ak Mauritanie. suñ diggante ak Mauritanie. fu kër ak sëriñ ne. fu kër ak sëriñ ne. Sénégal gii. senegal gii. naar nekk fa. naar nekk fa. dugal nañ la camion indi la ci jumaa ji. dugal nañ la camion indi la ci jumaa ji. ñaanu sëriñ bay nangu. ñaani sëriñ bay nanguwut aha kay yàlla ngay rawukaay yàlla ngay rawukaay yàlla nañ raw ci yow bay rawal ñeneen yàlla nañ raw ci yow bay rawal ñeneen yaa rabbi nangu na nangu naam te ñëpp teg nañ ci seen bët te ñëpp teg nañ ci seen bët yàlla ngay jéggukaay yàlla ngay jéggukaay yàlla nañ yàlla nañ jégg ci yow bay jéggal ñeneen yàlla nañ jégg ci yow bay jéggal ñeneen fii li fi génn ci alal di dem ci jaami yàlla yi bés bu nekk kenn xamul nu mu toll fii li fi génn ci alal di dem ci jaami yàlla yi bés bu nekk kenn xamul nu muy toll kon ñu ngi jéggal nit ñi kon ñu ngi jéggal nit ñi lépp am na fi lépp am na fi. kon nag kon nag. jaadu nañu xam liñ xam. jaadu nañu xam liñ xam. téye ko fonk ko fonk ko. téye ko téye ko. ak junney loxo. ak junney loxo. bu ko kenn sàgganee. bu ko kenn sàgganee. ñëpp nañ xam loolu. ñëpp nañ xam loolu. wax jàngi bëgg a gudd. wax jaa bëgg gudd. waaye dama bëgg ñun ñëpp ñu bokk jëriñu. waaye dafa bëgg ñun ñëpp ñu bokk jëriñu. sëriñ bi sëriñ bi. gis nga buy dépasse. gis nga buy dépasse. ñun ñii ñëpp kenn mën na koo ñun ñii ñëpp ku ne mën na koo toppatool boppam. buy jabar buy jabar. ku nekk ku nekk. yaa jël sa xaalis takk sa jabar. yaa jël sa xaalis takk sa jabar. buy bay. buy bay. ñooy wutal suñu bopp jiwu. ñooy wutal suñu bopp jiwu. ak engrais lépp ñoo koy def suñu bopp. lépp ñoo koy wutal suñu bopp. buy commerçant bi. buy commerçant bi. na muy def ba am ba uh, am njaayam jar. na muy def ba am njaayam jar. moo koy def moo koy def. xam nga lu ñu fi ëndeem. xam nga lu ñu fi ëndeem. suñ tooñante yi ñu ni neen. suñ tooñante yi ñu ni neen. ak yàqante bi ak yàqante bi ak jëwante bi ak jëwante bi ak lorante bi ak lorante bi dem ba dis gann ci ak i bàkkaar dem ba dis gann ak i bàkkaar suñu xol yi lëndëm suñu xool yi lëndëm ñu jaaxle ñu jaaxle xamatuñ fuñ jëm xamatuñ fuñ jëm loolu moo ñu fendi loolu dong ñu fendi gisuñ nag fenn foo xam ne gisuñ nag fenn foo xam ne buñ fa demee buñ fa demee diisaay boobu teggeeku ci ñun diisaay boobu teggeeku ci ñun amul ci àdduna bi xamul ci àdduna bi fii rek lañ ko xamee fii rek lañ fii rek lañ ko yaakaaree fii rek fii rek kon kon nag hubbil nañ la suñu xol yi hubbil nañ la suñu xol yi nga raxasal ñu ko nga raxasal ñu ko mu set mu set be ba ñu gëm yàlla ba ñu gëm yàlla lu waay xam lu waay xam ñu bàyyee ko ko ñu bàyyee ko ko te dimbale ko ca te dimbale ko ca duñu xeexante duñu xeexante duñ jëwante duñu rayante duñu rayante duñ ñàkkante ku nekk bëgg sa morom ku nekk bëgg sa morom na nga bëgg na nga na nga bëggee sa bopp na nga bëggee sa bopp yéen taalibe yi yéen taalibe yi yéen sama mbokki talibé yi. déglu len way Ibrahima Diouf. déglu len way Ibrahima Diouf. mune mune jàpp len sen kurus. jàpp len sen kurus. tay wirdo tay wirdo. te bu len di ngaayo te bu len di ngaayo lépp luñ len wax. lépp luñ leen wax. na leen neex na leen neex. ngir Sidi Barham ngir Sidi Barham. na ñëpp dégg loolu. na ñëpp dégg loolu. salaamaaleykum wa rahmatullah. barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tijaan jox ñu ñuy